seen kër lay doon suñu jigéen ndax ku suma bàyyi bàyyi woon xel la te ku bàyyi woon xel sunu bàyyi kon bu ñu ko tuddee bés muy bésu lislaam Ablaye Dieng jën ñi mu am ñëpp ni leen bu sama dara fiiñ ci carte yi bu sama dara fiiñ ci publicité yi lépp jox sama jigéen madame la ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop dama seede ko ba mu ne lu rafet maa nuyu madame la ministre Ndeye Tické Ndiaye waaye itam yàlla dogal mu ànd ak frère am teeru sëram waaye di sunu jigéen moom itam di sunu xarit ñu seq liggéey lu yàq ci wàllu xadara bi muy madame la ministre fa tabarakallahu Ndeye Saly Dieng Diop ñu yàgg seq yi ca Grand Dakar yàlla dogal itam Baye Mbaye Diop ci xadara bi laa tu'addu wa laa tuhsaa maanaam ku bëgg lu rafet sa xol sedd na ma jigéen Adja Seynabou Gaye Touré di doomu sunu baay Alxaaji Kurdi yu Gaye fa tabarakallahu di président départemental bu Tivaouane mu mel ni bi ma xoolee tànt bi li fi ay kilifa diine li fi ay kilifa aada su ma leen li ma bëgg a wax du ma ci wax dara te kenn ku ci ne na lu ñu sekk waaye bennoo ci lislaam dinañu ma may su ma jëlee alxaaji Asan Gay mu Seydina Limaamu Laay jël lu ñoo bi teg ci loxo yegg na ca alaaji Ahmad Baro Njëgeen ci Baay Cheikh yegg na kër Serigne Mor Ndiaye Gaabay ndax Serigne Cheikh ngi nii ak Serigne Alpha ak mboolem njaboot ci waaye yàlla dogal na sànq bi lay ñëw sama daf ma woo mooy soxna Seyna bu njëgën ndax Seyna bu njëgën a jur xalifa gay mu jur ma te moom laa ji wut mu ne ma sëriñ bi da ngay conférence war a ñëw teeru si madame la ministre Ndeye Saly bu jógee Dakar ñëw war naa bokk ci ñu koy teeru te nga jëm Porokhane kon na ko dul ndax ba ci gàmmu gii ma nga tëral a jax ba jëgal kon madame la ministre. ñëw nga ci say xarit ñëw nga ci say bokk ñëw nga ci say wëllee waxtaan wi li tax nag duggutu gannaaw ba ma nuyoo Adja Nduuti sama jigéen di borom këru madame la ministre Ndeye Tické waaye Nduuti di sama jigéen maa ngi koy siyaar waa sopp na bi maître Abdou Kane ñoo Adja Fatou Diagne fondation Serigne Babacar Sy ñoom Adja ak sundoy ñoom Adja luuti ñoom ñëpp ziar naa leen waaye ñu baal ma rek ndax tant bii Cheikh Sam tant li ëpp ci mbooloo mi dama seet ñoom tant dama seet ak ñoom kóllëre dama seet ñoom xarit te yàlla dogal Ablaye mii di président mouvement bi ma seedeel leen Abdoulaye mii jiite mouvement Siggi jot na yàlla dafa dogal bi ma jógee Ndar kër Sëriñ Mohsin Diop ñi ma njëkk a jàngal alquran moom ak Baba Diop ci la bokk waaye Abdoulaye Dieye waxuma Baye Assane Dieye waxuma mbokk ji waxuma len waaye mu doon ndaw xam ni dafa am taxawaay bu ràññiku ci dëkk bii waaye am ci diine ci Ablaye daf ko am te wallahu shahidun ma naqul gis man lu may seede yàlla rek laa ciy xool Ablaye dafa am taxawaay bu ràññiku ci dëkk bi bii Cees waaye taxawaay bu ràññiku ci daara yooyu nga xamee ni dama ci am cër di ci liggéey ci lislaam kon bu jiitee mouvement ñu tànn bés bi dañuy waxtaane crise des valeurs waxtaan wi nag dama koy tënk ndax toogaay bi dafa yàgg te kilifa yi toog li leen di xaar bëri te ay taalibe lañu gannaaw ministre bi ay taalibe pur lañu daanu joxe xorma daanu joxe teggin duñu mën a jóg te libéré leen te xam naa li leen di xaar moo tax damay tënk li may jàngale waaye ma ñaan yàlla rek lu mu gàtt gàtt ñu dégg topp jëf xayrul kalaami maa qalla wa talla docteur Pape Amadou Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar di sama xarit bu yàgg moom ak Idrissa Diabaté waaye damay waxtaan ni li ñu tax a daje li ñu tax mooy jikko yi mbokk yi li ñu tax a daje li ñu tax a daje mooy jikko yi moo feebar Sénégal mënu la dem te jikko yi baaxul yàlla bi ñu tagg yonent bi daf koy wa innaka la ala xuluqin azim maanaam lu ma bind yaa ci gën parce que yaa ci gën ci dafa am ñetti problème yu am ñetti problème yu am ñetti yi nga xamee ni moo am te te te doon feebar bu rëy dafa wax yonent bi alayhi salaatu wa dafa wax ni ala unabbiukum بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله الإشراك بالله حقوق الوالدين قال على وقول الزور وشهادة الزور ngay yàlla yonent bi dani kay ma xamal leen yi gën a garaaw ci société bi muy bàkkaar yi gën a rëy waaye bi ma ci soxla mu ni la benn bu njëkk bi mooy al israku billahi maxtaar maanaam bokkaale ak yàlla est ce que xam nga bokkaale nekkee ci yow dootoo am jàmm parce que da lay yóbbu ci añaan mooy dootoo nangu lu yàlla dogal dootoo nangu lu yàlla dogal mais bi yàlla bi yàlla di dogal soo bëggee dem pour sa jikko defaru dangay nangu lu yàlla dogal waaye da ko ni bokkaale yàlla dama ciy jaar waaye ñaareel bi mu ni ko gëdd sa ñaari wéjur maanaam fii ñu toll jikko yi yegg na ca yàqute foo xam ni njaboot bu bëri seeni seeni yaay dañu leen mujj ragal lana tax sa yaay ragal la sa làmmiñ wu ñaaw ak wu rëy maanaam doom doom su demee ba muy wax ak yaayam yaayamay dellu gannaaw wala du jeex c'est parce problème am na te léegi yaay yu bëri euh, bi bi mu ñëwee ni yonent bi dénk ma yonent bi dañu ko ummu ko toppal sa yaay mu ne ko suma man mu ne ko ummu ko toppal sa yaay mu ne ko suma man mu ne ko ummu ko toppal sa yaay ba muy ñetti yoon mu ne ko suma man mu ne ko abu ko toppal sa baay léegi nag yegg nañu ci jikko yu yàqu ba su doom yëkkatee baatam yaayam taxaw da ko naan eh, eh, bu dee wax rek ka la boo dawul du daw eh man fekke eh, eh fekke xale bu jigéen bu taxaw yaayam wax mu ko yaay dimbali ma nag noppam ma borom de diglaayi maa ko fekke maa fekke lii eh eh yaay dimbali ma nag bu ma rey ak de yaay ji ni ko doom baax na waaw may may ma ni waaw ma ni ma ni maanaam bu ñu demee ci ba respect amatul ci sa yaay amatul ci sa baay amatul ci sa borom kër ndax di ko amal ñi ngay déggee ci bett waaye bi ma taxoon a jóg ah, lii de conférence nag nii ci la bokk conférence nii donc la maay wax ngeen di joxe lii rek ay conférence amul ñaari man maay wax yéen yéenay joxe képp. nee leen ay conférence jóg ma jóg damay bañ mu perturbé tuuti rek. barrières yi. jërëjëf. waaye maanaam. ok. maanaam. xam nga. mu ni ko mu ni ko bi des. jërëjëf. jërëjëf taxee na. ay sama waay jàng. incha allah après ñu jàng. voilà li may ma président lay ji. bi muy départ dafa jubal ci yaayam sukk tàllal loxo fekkewu ma ko waaye yaakaaroon naa ko ndax xam naa ko jërëjëf mu ni mu ni mu waaye bi ma doon mooy xaala ala wa qawlu suur mbokk yi maanaam bokk na ci feebar yi xew juróom juróom-ñaari yëf rek lay joxe ci yàqu yi yàqu ci jikko yi yi nga xam ne bu ñu ko réparé réew mi dem su ñu ko defaree mu ne bokk na ci mooy wax lu dul dëgg alaa wa qawlu suur wa shahadatu suur mais te li garaaw li garaaw li garaaw wax lu dul dëgg li muy garaaw yëpp seede lu dul dëgg ko raw ndax wax lu dul dëgg tas na sëy tas na xarit tas na mbokk tas na parti tas na daayira tas na association benn message boo xam ne wóor na la ni waxuloo dëgg nga takkal ko sa nawle ko te moo ko waral mooy dinaa wax lu dëgg ngir ñu jox ma alal dinaa wax lu dëgg ngir ma am tur ala wa qawlu zuur wa shahadatu zuur maanaam li ngay yaa ngi wax lu dëgg waaye yaa ngi koy seede ci sa deru nawle mbokk yi cër yi yàlla koy joxe benn xale daa ñëw ne yonent bi dénk ma yonent bi di ko ragalal yàlla soo ragalul yàlla lu yëngu di ko ragal gis nga mot ku ragalul yàlla lu yëngu nga ragal ko responsable yeeg imaam yeeg ñëpp ci yam koo ragalul yàlla lu yëngu nga ragal parce que liñ xam ne bëri liñ xam yëpp ku ko bëgg a daw foo jëm a yi bëri na parce que problème yi ci koy feebar da ngay fekk naw ne gor su la deful dara nga bëgg ko santaal te gor ku ko santaal ñàkk gor kenn du ko santaal defal ma lii wala ma waxal la lii te wóor na la ni li ngay wax amul alaa wa qawlu zuur wa shahadatu zuur benn waay dafa ñëw pour ma wax la seede lu dul dëgg ma maanaam ni ko nit ñi ñemee benn waay di xuloo benn waay rek ñuy xëccoo benn machine maxtaar ne maa moom machine bi ngan ñi ko maa moom machine bi maxtaar ne maam moom machine bi ngañ ñi ko maam moom machine bi coow li bëri lool alaaji Cheikh Samb ñëw di leen waaw tee ngeen a déggoo rek wax wax ñu dëgër ñu geef so rek benn waaye jóge fee ni ak sañse ba ak jëmm ju taaru ja ñu yaakaar ko ni eh góor gi de mën na ci dara ñu di ko bàyyi gars yàgg nga ci dëkk bi ñii seen coow li kenn mënu koo régler parce que machine bi ñuy xëccoo maxtaar nee na moo ko moom cheikh wax na ba tey ngañ nee na moo ko moom bàyyi dimbali ñu nga atteel ñu nii góor gi xool maxtaar rek mu nekk mu ni billaahi wallahi tallaahi machine bii maxtaar ko moom yére bii ma machine bee ko ñëw te maxtaara ba ñëw te am na ñetti at ni way ngañ bàyyil machine u jàmbur mu ne loo wax mu ne machine bii maxtaara ko moom ndax yére bi ma sol maxtaara ko ñëw ñu ni ko paa nga ñu machine u la ñuy xëccoo ah. machine wal sunu wàll mun mu ne lu ma ca xam ñu ne ko Paa looy seeda mu ne ñeme yàlla rek ñeme yàlla rek ah maanaam li ma la bëgg a wax mooy maanaam nit ñi yàgg nañu su ñeme yàlla seedeel lu ñaaw ci góor te xamaluñu ko dara te nag baal leen ma baal leen ma gis nga pour sa jikko defaru xeexal sa xol ba kañaan génn ci alxasadu yaakulul xasanaati kama taakulu naarul xatab billahi yonent bi ko wax ah billahi yonent bi ko wax yonent bi nee na kañaan kañaan kañaan dafay lett yiw comme ni safara di def mboq fekk xeexuloo ba kañaan jënn ci sa doo dem parce que boo ñëwee ku ñu fal nga feebar ku fal nga feebar ku xëy am loo amul nga feebar ku xëy sol bu mu rafet nga feebar ku xëy jënd oto bu rafet nga feebar añaan baaxul yaa ngi conférence de. baal ma gis nga euh, gis nga kañaan bu xasee ba tàbbi ci yow maanaam dootoo def lu baax soo jullee dafay naaw soo wóoree dafay naaw soo ajee makka dafay naaw yaakulul xasanaati kama taakulu naarul xatab te lu waral kañaan lu waral kañaan. mooy def dafa yàlla bu la neexul te xam nga maxtaar lu yàlla xewal fi mu ne boo añaanee du la rey déedéet añaan dee xewi na xam nga nu mu lay def lii yàlla xewal fi mu ne daal li ma ci gis Cheikh mooy gis nga boo kañaanee yàlla dala fiy bàyyi bàyyi fi ki nga añaane saa yu xëyee yokkal ko lu mu am lu woon démb. ah lay ma taal xam nga yàlla lu mu la yëg maanaam dana fi bàyyi nga naan non non non du dem Cheikh du dem Cheikh du dem nga xëy suma dégg ñu la ah, Cheikh kan bu jëlee koo jox nangam nga naan ah, non du ci yàgg nga xëy du yéege ko nga naan du ci yàgg nga xëy mu yilif la yàlla yii la taxaw lii tamit ah, ci yëm xam nga lu du ci yëm yaakulul xasanaati kama taakulu naarul xatab maanaam yow mi añaan doo dee sa problème mooy da ngay xëy rek di jeex di om te kenn lu la jot feeb dara dara maanaam li la feebar li la feebar sëriñ du ko gis médecin du ko gis yaa ko xam parce que bee baaxul dinañ tudd na xëy وكفيت نشرا لا لقيت ولا بقيت نورا su ko defee maanaam bu la yàlla dimbalee nag fii réew mi toll ngeen baal ma gis nga gis nga wax yonent bi dafa wax ni dafa am benn nag bu génn buntu aljanna ñu di ko dugalaat te xajaatu fa ñu di ko mooy lan mu ne mooy kàpp man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut ah soo demee bay wax mais nattal wax ji ba mu ba xam suñu la ko tegee muy mel danga koy natt sol nga seetu xool ko soo demee ba ni bu ñu la ko waxee belese sa njaboot bu ñu la ko waxee say say soppe maanaam boo ko xoolee rek tegaatal kaddu gi bul ko yëkkati beraatal kaddu gi bul ko yëkkati beraatal sa kaddu yonent bi nee na yonent bi sallallahu alayhi sallam nee na bel nee nee na loo bëgg a wax yonent sallallahu alayhi sallam nee na loo bëgg wax nattal nattal waaw lii su ma ko waxee nan lay def ci ki ma ko wax dañ ciy xool sa bopp rek noppi yonent bi dafa ni nettal li nga bëgg wax soo ko nattee ci sa kaw mu ñaaw dencal bul ko wax <coughs> ñu baal ma ñu baal ñu ñu baal ñu tuuti rek dafa message rek bu ñuy wax parce que nag ñii dégg dañu déjaloo ay weer di dox di woote génne seen alal dépassé ko ni ma Idrissa kay waxal ñu nangam kooku masuuliya responsabilité la ñu baal ñu kooku responsabilité la ñu baal ñu li nga xamee ni ci am mu ni dafa am yonent bi dañu soo bay wax na rafet mbaa nga noppi waaye dafa ni yii jikko yu ñaaw yii bay bëgg a wax juróom-ñaar yii alkadibu xiiba namima kibru ujubu riyaaru mooy naafeq lan mooy lan ngañ yonent bi kan la mooy naafeq mooy wa mooy ki yàlla ne wa ida laqu alladina amanu qaalu amanna wa ida xalu ila shayatinihim qaalu inna maakum gor yëpp sonn xam nga lu sonal gor yi bu nu jàppee du ñu bax suñu waxee fas yéene nañu koo jëf te jaxasoog ñoo xam ne fu nu xëy yendu bu ngoonee yendu fanaan fanaani fa ca gor yëpp sonn parce que li ñu lay wax ak li ñu nekk bokkul gor yi yëpp a sonn yonent bi xare Badar xare Badar dafa dem ba dernière minute mu consulté gars yëpp ñu jël engagement ni ko boo demee ñu dem soo deewee ñu dee yonent bi dem ba war a jóg naa fekk yëpp dellu gannaaw moo tax ma ni gor yi dañu sonn parce que bu ñu engagé du ñu dëpp te ñi nu àndal la ca ëpp duñu duñu duñu nit ñu dëggu parce que jikko yee yàqu da leen di sóor te boo yettee doo leen gis xam nga bi leen tamit ba dernière minute mu ne ana ku ne joxe ngant alaaji Cheikh man ku ne joxe ngant yàlla ñu ko eh, eh eh maa ànd ak yow gis nga ku yàlla àndal ku yebu ànd ak yow ku ànd ak yow nga dem ku àndut ak yow nga dem le sëriñ Babacar ne bëri ko bu tegu ci mbattal ku teg loxo dem ku tegul loxo dem kenn mënu ci dara kooku yàlla la rufi'atil aqlaam wa jaffati suhuf rufi'atil aqlaam wa jaffati suhuf yàlla dogal na yàlla dogal ci mbaaxam bi yonent bi ne ana gaa yi ñëpp daw yàlla di ko innii mumiddukum bi alfin min al malaikati murdafin gis nga maag yow a ànd dinaa yebal ñu la jàppale waaye ñu ko jàppale bët yi gisuñu ko parce que ay malaaka la yàlla yebal léeg-léeg am na ñoo xam ni du ñu tàbbi ci gàcce parce que yàlla ànd na ñun léegi mu ne yii na nga xam ne moom lay tënk mooy alkadibu wal xiibatu a walnaminatu mbokk yi nee na xaraam na ci jikko ji mooy koo xam ne lu mu wax ñu ne mbaa du waxu diw mbaa du waxu diw jarul doo sa de lu gën a garaaw ci àdduna bi di amul bas gis nga bas gis nga bas maa ngi lay seedeel li gën a garaaw li gën a garaaw mooy koo xam ne lu ñu ne mbaa du waxu diw tànk rek yonent bi nee na al muminu laa yaktisib yonent bi nee na jullit la amuloo droit di fenn jullit du fenn nee na jullit bu sàggan mën na njaaloo mën na jël alalu jàmbur mën na def lii mën na def laa waaye jullit du fen al muuminu laa yakzib gis nga ah li leen di wax boo ma bàyyiwul dinaa defante moom de defantewul ak kenn soo koy bàyyi xam ni demu fen day wax rek kuy fajal sa kilifa doo ko tàgg doo ko ko nettali xam nga looy nettali kilifa wax ju rafet juñ ko wax waaye wax ju ñaaw kenn du ko nettali sa kilifa danga koy faj rek te noppi waaye boo déggee fukk yu rafet ñu waxal ko sa kilifa doo ko ko wax benn bu ñaaw ngay dégg rek yóbbu ana yu rafet ya ana yu rafet yi gis nga damay faral di wax ni euh, ñu baal ma gis nga Sénégal li fi baax moo ëpp li fi baax moo ëpp waaye duñ ko gis il faut nga tukki jaxasoo adduna bi xam li Sénégal fi mu toll fan la waaye ku xamul lu xew xamoo du xew dañ ah, a organisé waaw kay nii la nii a organisé ah, waaw kay yal yi xam nga lu ci ne koy wàññi rek dafa damaa gàmmu ji Angleterre ma ñëw rek benn waay nuyu ma ni ma sëriñ bi ma ne ko la béykat mu ni ma daaw suñu gàmm gi dafa yàqu ma ne ko lu ko yàq mu ni gars dañu doon jaabante waaye ren réglé naa ko damaa tëj tànt bépp kenn du jóg ma ne ko def na musiba dawal dawal dawal ma ne ko dangaa daamu dawal dawal waaw kenn mënatu na dawal doom dawal. Cheikh ma ni ko ëpp naa def daanu dawal dawal wàññiwul dara doom dawal da ngay yàq rek waaye li ma am kooku mooy bu njëkk li muy wal xiibatu maanaam maanaam maanaam jikko bi ñuy tudde jëw mbokk yi xoolal ki nga xam ne lu am jox fu mu jëm yóbbu la suy lekk woo la te lu mu dégg yaa ko wax baal ma baal ki nga xam ne fu mu jëm yóbbu lu mu xam wax la lu muy lekk bokk ak yow te lu lu mu dégg yaa ko ko wax waaw lii ba tey والغيبة يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم am na ñoo xam ne yëgg nañu ci feebaru jikko bu seen xarit amee xarit bu bees ñu feebar feebar man yëgg nañu ci feebar seen responsable wala seen xarit bu bees bu ko jox loxo ñu feebar kilifa da koy dar da koy darle waaye doo dar da nga koy darle koy dollil ay soppe waaye doo ko wutal ay noon kilifa dañu koy dolli ay soppe waaye doo ko wutal ay noon waaye jikko yi nag na ci wal xiiba li ñuy wax jëw jëw kilifa yu bëri lii leen di bëgg a rey parce que ki ñu wóolu di ko dimbali di ko fajal soxla di ko dugal ci seen oto di ko teg ci seen saal di ko dugal seen chambre à lu ñaaw lu ñu dégg moo leen ko wax waaw ba boo demee ci bëgg ndey boo demee ca seen émetteur ba boo demee ci assistant yi boo demee ci chauffeur bi boo demee ci collaborateur maanaam ñi seen jikko yàqu ñëpp ñoo ngi rey kilifa kon nañu defar suñu jikko ba duñu wax su gannaaw kilifa lu yàq dara waaye yooyu jëli mooy rambaaj am na maamatu laa yadxulul janna yonent bi nee na rambaaj du dugg àjjana yonent bi ne maanaam xam nga damay dégg ñu naan politique politique jëmul àllaaxira man d'accord ma déedéet politique jëmul àllaaxira d'accord ma xam nga lu tax bépp boo def ci politique yow ma xiyam di nga rendre compte yàlla amul kullukum raain wa kullukum masulun an raayati mais mais xam ni tey Sénégal dafa naqadee wax waaye duma tee wax dafa naqadee waxe waaye duma tee wax parce que yonent dafa wax ba ñu wax ko ñett nee nañ ko saaxir jibarkat na nee doo wax dëgg nee na kon majnuun da la lu tax parce que message bi mu wax arrangé wu leen te ala rasul illa al balaa ndaw li ko war mooy la jotal waaye politique nit ñaa ngi ciy defaru bu jikko yi defaroo suñu amee kees fi may tëj bu jikko yi defaroo xam nga suma frère bii di président Ablaye ci li ma xam ci li may yëg ci li may gis parce que man Thiès laa dëkk Thiès laa dëkk damay wax ni Thiès laa dëkk te Sénégal la ñu dàqal fépp Sénégal moo ñu dàqal fépp ci àdduna bi fu ne mën na yàllaa ñu dogal ñu fa yem waaye Sénégal la ñu dàqal fépp dama dem ak benn waay makka ñu aj ba pare seen vol am problème quatre ans ci gannaaw ñu am retard seen seen giddi woo ma ni ma tee nga maa defal benn waxtaan pour pour dalal xelu ujaaj yi ma dem fa waxtaan ba daaneel ma ni leen kaaba kii boo fi jullee luñ lay fay kaaba kii téeméeri junne nga dem julli fa ñu fay la mooy 55 ans 6 mois 20 jours. 55 ans. 6 na ko nee na benn julli boo ko julli. 55 ans 6 mois 20 jours julli. 55 ans la wax de. 6 mois ma waaraate ma ni waaj mais kaaba boo fi julli am téeméeri junne. dégg ngeen dal sa bu ngeen jullee Sénégal am 17 waaraate ba daanal waa ji ni ma sëñ bi dañoo doyoon ci téeméeri junne yi dañoo bëgg a ñibbi ah wala ma sëñ téeméeri junne yi moom doy na sëkk ñu daal ñibbi Thiès rek jàkkee Thiès daal la du soxla maanaam li ma bëgg a wax mooy yëg-yëg gi ak cofeel yi nga xam ni am nañu ko ngir suñu réew kon Sénégal Sénégal rek la ñu am. ma baal ma bi mooy mooy jikko mooy jikko ji ñuy tuddee rëy fii laay daaneele sama kàddu nday jaay ñoo leen di nuyu di beral yoo suma xarit bàcc baax gis nga bàcc kenn la ci mouvement bi càmmi ñu jigéen ñi la waaye bàcc ku bëgg président Ablaye Dieng la billahi ladi laa ilaha bàcc baax bàcc li mu ma woo ci téléphone nee naa ko bàcc woo lu toll nii ci téléphone ci boo fi bay te bàyyi ma mbir mi jotagul maanaam waxuma tey tey moom lu mu gàtt gàtt bàcc woo na ma lu man ñaar fukki yoon maanaam su gàttee tey mu ni ñu bàcc bi dee mu ni koo bàcc li ngay wax déggatuma ko mu ni ma te waxam lépp mooy jigéenu Ablaay yi sëñ bi dama bëgg nga ñaan conférence bi réussir billahi la ilaha illa bàcc daa wax ba ma jaaxle tax nit su leen boole dafa am noo koy téye waaye kibru rëy rëy maanaam gis nga ñu tardé xam nga lu leen tardé du ma yilif maa ko mag maa ko raw maa ko fi njëkk góor laa jigéen laa nii laa sant moo ñu tardeel kibru baaxul iblis iblis la tax ñu dàq ko wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba bi yàlla ne malaaka yi sujjóot ñépp sujjóot ñépp sujjóot kenn rek a bañ mooy iblis lan moo tax mu bañ lan dañu yàlla kii gënuma aba bañ na wastakbara mu rëy rëylu wa kaana min al kafirin xaj na bi donc abaa bañ mu rëy rëylu moo tax mu rëy mooy xalaqtani min niir wa xalaqtahu min tiin maanaam ñi tardé ñëpp li leen tardé loolu la mooy diw du ma diw maguma diw njëkkuma diw mënuma tey yàlla mooy séddale cër yi su ko defee nag su ko defee nag Modou xam naa bu président toogee ñeneen ñi nga xam ni moom laa bëgg a tëjee. wallaay ndeysaan Doudou. ñoo yegg ci suul yonent bi nee na jokkoo ku la dox ñaareel bi ni tam rafetalal bu ñaawal sa der mbokk yi rafetalal ku ñaawal sa der dem benn réew ci ci bitim réew Amérique ma dem seeti benn waaye daal ci moom ñuy waxtaan billahi wallahi tallahi ñuy waxtaan sëñ bu ma mu ne ma du dara ku ma mu du ma du dara ñu ma yow bokkoo gaa yi ma ñu dem ma tey bokkoo gaa yi yëpp mënuñoo bon ma baax mënuñu ko ne man ma comme dama waroon a yéendu ah, léegi yéendoo ko ma tuwaawar saa fi def maa ngi dem loo may teg nag noonu kon nag tuuti tuwaawar mun na ci yokkal leneen maa ngi dem mooy nit ñi dañuy ñaawal daru ku ñu xamul dañuy wax lu ñaaw ci biiru nit te mosulaa jox loo ko xamul la loo ko xamal ba di ko wax nit ba la ko koy waxal dara. yow sabiina marra bu ñu ne daam saako def na nangam yonent bi ne ne wépp daam saako nangam weddi ma muy juróom-ñaar fukki yow bu setul nga noppi waaye diw def na nga ne da ngeen ciy soog a nga def daw borom mu ne rafetaloo bu ñaawal sa der am na ñoo xam ne du ñu wax mu lu rafet ci dëkk bi parce que seen jikkoo feebar mu ne ñetteel bi mooy séddal ku la xañ Cees neex na yàlla ci dogalam mu jaare ko ci son excellence président Macky Sall tey Cees gii mu teg ko ci loxo nekk ki muy ci biir di doomu Cees waa Cees war nañoo nangu jàppale ko mu jeex liggéeyu Cees la doomu Cees la mi ngi wax lu baax mi ngi def lu baax ministre la dëkk fi Mali Sénégal li muy neex yëpp Cees gii la ñu am Cees gii kat wa ansir ashiratika al-aqrabin Cees kat la ñuy dooree dem kon yaakaar yooyu taxawaay rek ko koy defar taxawaay du daa lu dul di wax lu baax di def lu baax ku ñu dénk cër ñu jàppale la ba am ci dara amul beneen affaire ndax lii président Abdoulaye def jël bis bii simili ne delloo naa ko mënul mais lii mooy jikko ju rafet te lii mooy jàppale président Macky bi ñu dégg réew mi te lii mooy dalal xelu mag ñi bennoo defante lu baax waxante lu baax kenn mënu la fexe ba lii yàlla def nit di ko dindi yàlla képp kott dong rek kese moo ko bëggee dindi kon yàlla ko yàlla sax bi des mooy waafu am man baramata jéggalal ko la bon ku jéggale jéllale yàlla defar sa affaire da ngay jéggale jéllale yàlla defar sa affaire waaw fa man bala mag jéggalal ku la tooñ soo jéggalee fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah ànd ak président di ko jàppale mu nekk yàlla soob mu jël nay sali jéeg jóob mii ni ko doxal waaye duñ doxal ku bëgg a dox ànd ak kuy dox ñu doxal la nga dox kon mbir mi nañuy nangu cër yi li ma bëgg a wax mooy lu yàlla dogal na neex man day warante nii bil xaraa rabbi musabbirani ala balaika ya rahmaanu ya allahu loolu sax su ma defee ba loolu jàllee dund lu yàlla dogal ñoo ànd. rahma lii maamam si jaaj maa ngi ko ko wax. wala bi lii bil xalaam maamam si jaaj maa ngi ko ko wax bàyyi ma daan jël gaal yi wuti Tiwaawan dama fii mu ne mi ngi jël gaal yi wuti Tiwaawan sëñ Babacar Si Mansour bu duggee Tiwaawan du jox kii bu duggee xadara ba du jox mi te may wax xam naa ko dund naa ko fekke naa ko dégguma damaa fekke kon cër lii doo nga lu ñu ci jox ñëpp na ñëpp bokk jàppale ko rafetal bu baax Sénégal jëm ci kanam feebar bii ñuy wax mu tudd corona yàlla ñu ko yàlla karal corona yàlla ko yàlla kar ba du as suñu réew bokk mooy nañ ciy baax waaye nit ñi am na ñoo xam ne ku sa kër sax ñu ngi réew ma corona bi kon yàlla yàlla dafa maa ngi lay nuyu di la di la dokke maa ngi leen di baal wax ak yéen ñëpp yéen a woon naa lu gën a rafet lu a jot lu a mat waaye lii la yàlla dogal ci man jox leen daje yàlla ñu fekkee deux mille vingt et un ci barke Seydina Muhammad aleykum wa taala wa barakaatu jërëjëf. ah Sidi Moussa ay eh, tàcc war nañ ko bu baax